kii yi salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax jërë ngeen jëf ci and bi ngeen ànd ak sunu people TV ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci internet bi ci réseaux sociaux yi bokk na ci xibaar bi nga xamante ni moo di Père Mbaye Ngoné Fall nekk ci émission boobu di gis-gis ci seen TV Père Mbaye Ngoné Fall nag gis ngeen ne semaine bi passé dafa benn vidéo boo xamante ne kooku di Modou mbay di doom ci Bécaye mbay daf ko dugaloon ci émission boobu di Bantamba mooy fi nga xamante ne ci la Père Mbaye Ngoné di bi daanoo ci suuf si ci ba bi nga xamante ni moom la Baye Mandione doon bëree ba daan Père mbay Ngoné di xalangu ci suuf si ba kanam gi yëpp daal di takk suuf vidéo bi nag bi ko Modou Mbaye génnewee daal di koy wane ci émission Bantamba le lendemain ci mercredi bi neexul ki nga xamante ni moom moo di Père Mbaye Ngoné wax na ci lu ne nee ki génnee vidéo bi dafa waroon génne tamit bu papaam waaye li ñu seetlu tey ci émission bi nga xamante ni moo di gis-gis daal dina ci wax li nga xamante ne moom mooy euh, li mu wax ci euh, émission bi mooy jéggal na Modou Mbaye ndax dafay fàttaliku mook papaam ay xarit lañu te am na foo xamante ne jot nañu faa jaar buñ jugee ci Père Mbaye Ngoné Fall ñu dem ci Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ni moo di Malick Gakou ak Ahmed Aïdara ndax xam ngeen ne ay jamono ci ginnaaw ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 na ay jafe-jafe yoo xamante ne diggante moom ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Malick Gakou waaye lu jiitu loolu tamit ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Aïdara moom tamit jotoon na fee laale ak Malick Gakou ci benn benn enregistrement boo xamante ne dañu ko ko enregistré woon daal di koy euh, teg ci internet bi muy euh, jëw mali Gakou te dañu seetlu woon ne ñoom ñaar ay xarit lañu woon li ñu gis nag ci semaine bi muy photo boo xamante ne mun nañ ko tuddee photo bu inédite ndax euh, ki nga xamante ne moo di Ahmed Aïdara Balla Gaye 2 ak mali Gakou la ñu wane biir kër Malick gàkku ñu toog di waxtaan la ñuy waxtaan nag daañu ko topp ba xam lan mooy sabab bi dinañ ci dellusiwaat ci ni mu gën a yaatoo bu ñu jugee ci diggante Balla Gaye 2 Ahmed Aïdara te Malick Gakou ñu jàll ci beneen xibaar ñu dikk ak yéen nag ci xibaar bu doy waar xibaar boo xamante ne nee nañu benn chinois ak benn sénégalais ñoo doon séq maanaam mbirum góor jigéen ci un million yoo xamante ne chinois bi daf ko waroon na jox kooku di euh, sénégalais bi sénégalais bi nag mu ngi wuyoo ci turu Papa Souleymane Sagna nee nañu moom moo rey ki nga xamante ne moom moo di chinois bi ndax dañu séq ba pare chinois gouvernement bi waroon ko fay un million te mujj ko jox xaalisam foofu nag la ñu mën a yemagum ci xibaar yi ndax nee nañ ñu ngi topp enquête bi lu ci mën a am daañu ci dikkaat ndax mu ngi ko jam paaka ci seize coups yoo xamante ne moo indi ki nga xamante ne moo di chinois bi daal di ñàkk bakkanam bu ñu jógee ci mbir mu doy boobu noonu ñu jàdd ci beneen mbir ba tey ñu dikk ak yéen ci li gën a ci internet bi gannaaw euh, amande bi nga xamante ne teg nañ ko kooku di Aby Ndour ak un mois de prison avec euh, sursis Aby Ndour moom mais bi ñu xëyee gis nañu ko mu nekk ci otom di euh, teg musique mel ni la nga xamante ne dañu ko teg muy amende deux millions ak mois de prison sursis bi dafa mel ni yëngalu ko mu nekk ci otoom di mel ni kuy gaaral di woy ay woyam te mel ni koo xamante ne daal mbir yi dara saf ko ci mu nekk nag loo xamante ne vidéo bi site yu bëri daal ñu koy reprendre daal di koy wone di wax ne Aby Ndour gannaaw condamnation bi dafa mel ni moom yëf yi dara safu ko ci. ñu jeexale ko nag ak euh, ki nga xamante moom moo di Ndella Madior Diouf euh, seen euh, scoop média moo ñu ko xamal ne d'après li nga xamante ne doon na ko def muy ay sorties yu doy waar di wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa kër Ousmane Sonko yi di leen traité de tous les noms di leen wax ay xar ngeen da ngeen di topp ci ginnaaw Ousmane Sonko amu xam-xam xamu dara Ndella Madior moom boppam moo génnaat daal di def benn vidéo daal di xamal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa kër sonk yi léegi nag coow li jeex na dafay bàyyi lépp mu daal di sedd ndax nag euh, jàmm ci la lépp xaj loolu lañu ki nga xamante ne moom moo di euh, Ndella Madior euh, Diouf daal di ñuy xamal ci réseaux sociaux yi site yëpp daal di xëy daal di koy reprendre mbokki li moo gënoon fës ci li nekk ci internet bi su ko defee beneen yoon ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci internet bi jërë ngeen jëf